faw seni ah lu tax nga wax ko man Balla jaaxa faw seni mii faw seni jaaxal na ah, dafa ñëw si ta lamb ji ak sebeer reetaan kaf lu xàkkataayam faw seni ñi noon wax faw seni bàyyi nañ ko wax faw xanaa est-ce que est-ce que dafa xamoon fi enjeu combat bi toll woon fi mu ko mën a yóbbu ak fi mu ko daanu ak fi mu ko daanee Balla man dama ko ñeewantal kanam dama xalaat bu yeewoo tey buri kanam kanam Balla day yàqu naka ki foogoo ni moo yàqu moom moo yàqule musuma gis ko foofu jeunes yi foofu jeunes yi jaaxal na foofu jeunes yi foofu jeunes yi jaaxal na ma. pourtant yow yow mbetteel bi nga ci am moom la ñëpp am parce que ñëpp dañoo jàppoon ni Balla Gaye 2 Tapha Tine dina ko humilier mu jàpp Balla Gaye da koy lekk naka de moom lañ lekk. li li Tapha Tine bëggoon li mu ma waxoon dama ko gis géej. mu yenu sareet ma foog ne sareet diggantaan da nga def sareet daf kaf la. sareetu la. fowukaay la ma da nga ne luy ñeex ma foog ay Papa Sow feeñal na tabaatin feeñal na Papa feeñal na tabaatin feeñal na ko de. yow Tafa xaaral kaa li mu bëree yow d'accord nga ci yow li Tafa la bëri li la bëri moytu xaaral Tafa nag loolu tam Tafa lii la bëre nii lii la bëre Tafa ba léegi gisuma loxoom def fii. est-ce que est-ce que ko boo xeex. jàppante la moom nga ji mu am dara. Eh, ah, ah, léegi xam li problème bi ah. hmm. nit ñi nañu bàyyi tubaab tubaab ba. tubaab na entraîné ko ñëw. dama dama am des seede lamb ji. bu ci am. déedéet ah. la la damaa jagal rëy du dara rëy du dara ku naa da ngaa rëy rëy du dara nag. billaahi wallaahi faral naa daal bala nga dama ko ñëwatoonoo kanam. Ah, maanaam ponkal daal ngand nii du dara. moom la olof naan guy rëy na loolu waaye matul këriñ. barke Serigne Fallou Mbacké tawaat yi ba bi yureeku. tafaatin xool sëgg gén daal làmb ji ma ne kii du tafaa kii Moustapha la ma ne kii du ta kii nekkul yuuxu bi léegi ma indi image yu yuuxoom bi ah, non ah, non non non ba pare man tafaa li ma xool ci làmb ji ne ma Pawlish dinaa ko dama wàlla moo bënn mo bi saret foofu kaay bi mais taw mais mais ko bëgg man Pawlish man tafaa la bëggoon mu daan barke salaatul fatiha ndu kii so bool mais dama ko ñëwantoon ci làmb ji dama ko yërëmoon ci làmb ji xam nga ni Tapha li ko daan wéet la. ragal Balla Gaye est-ce que a ko daan est-ce que ko mystiquement aussi kaay a ko daan ragal Balla Gaye dama yow dañu wax. Pawlish du ma ci daal parce que boo nee wéet. boo nee wéet mbokk mi gunge ko tey stade. Bawol ba. Hmm. est-ce que ñun ñoom ñëpp ñëw ne Balla Gaye mbëru Dakar la. mais ñëpp ñoom journaliste yi ñu ngi woon Medina ñëw na journaliste ah. ñu ne toog ci plateau yi te Balla Gaye lañ ñoom ñëpp Balla Gaye dañ faral. ah Pawlish nag yaa ngi yaa ngi wax ay. bu dee Tapha Tine wéet daanu la ko ak ragal yàlla ma gisante rasulullah yow ma xëyam. non non lii. Tapha li ko daan ragal ak wéet Tapha dafa wéet ci làmb ji gisoo stade Tapha Balla Gaye dañoo gis caméraman yéen Balla Gaye rek ngeen doon gis ñu yoroon caméra yi gisoo ba Balla Gaye dugg ci ñaar caméra ko topp Tapha Tine 15 Balla ah, mais Tapha Tine balaa arbitre di soufflé amoon na confiance mu ngi doon génn di fecc. et tout déedéet nit bi xanaa kuy daanu ku daan mosoo gis nga ne da ngay daanu triste nii loolu amul fenn da naan day sànq ki waaye ñi daanu ëpp confiance ci lu yàlla bind Balla Gaye dafa ànd ak tey sévère dafa ànd ak intelligence ànd ak xel fonctionné mbir si normal la musuma xam ni la mel musuma xam ni Balla Gaye saay-saay la. ba li jaaxal nit ñi mooy Balla kuñ ko booleel ñu ni kii dafa xeexkat boo seetloo carrière Balla yëpp ñu ni kii xeexkat la Balla bu tasee moom da ko humilier ci xeex. waaye déggoo Balla ci la nga mënee ci la lay fekk ci man foog naa ne Balla Gaye fu ko tabaatee doo doy bët. nagate moom moo bëtt yanu sareet di fractionné trois cent trois cent coups lañu musuma gis dugg ci piscine sotti sa bopp ay glace c'est que c'est pas est-ce tamit fi mu est-ce tamit est-ce que tamit. waa bi dañuy naxee waa Bawol yi di leen nax rek nit looy gisee nit kuy dund nga soog ko ci glace. nit ñi dund nga war a def lu tàng dugg ci glace lu tàng dafa ànd ak sedd. mais par loolu sport au niveau yëpp gars yi dañ leen dugal ci ay glace et tout. ah fii ñu bëree dafa sedd paa bi dafa clim tàngaay les glaces ki nekkoon cere moo wàcc ci yaram bi ba ba yaram bi way ba mën ta du yëkkati loxoom du galaaj baaxul ci terrain bi dund day taxawloo sa est-ce tamit est tamit gisoon ni Tapha li ko chargé ci entraînement moo ko sonal mu jël lu bëri tey ban Balla Gaye nga gisaat ci détermination. Balla Gaye bu saay-saay faw jeune bu doy waar mbër mën a xeex Balla Gaye ba woon ba papam doon ko kott muy jooy Balla Gaye boobu la ñëw ba papam doon ko kott di ko ñaan di ko def nii Balla Gaye boobu moo ñëw barki salaatu ala nabi foofu jeune mii bu ko tuddee foofu jeune day ko tuddee nokk ma nokk fa ni nokk ko tuddee nokk fa ni bu ne tuddee foofu jeune de mais léegi kon nag moom mooy empereur bi non Balla Gaye moom day ko tuddee nokk su ni na loo dijji mu noq la nga ndaw mu noq Balla Gaye bu leen ko yi dinañ ko tuddee noq yi noq na ñëpp. mais Pawlish li jaaxal nit ñi Balla Gaye ak Tapha seen première face to face arène nationale bi photo yi génnee image yi génne ñëpp dañu dar seen gémmiñ ni kii amul fu mu mën a jaar Tapha Tine jii ñu gisaat ci arène nationale bi Tapha Tine mel du woon moom. xam nga Abdou Jàmbaar laa tegoon kii. ma waaw. Abdou Diambaté si taaju mën lañ ko doon woy tamxarit musuma gis nit ku toll noonu ci doomu aadama ba pare yuuxam ba yuuxu man xaw ma yuuxu day daan la xaw yuuxu lan la man li ko yuuxuloo kenn xamul lan la ba pare lamb ji fi ko dat bi nga ko jàpp baax ban dat la dat ko jàpp baaxul ah, lu tax bis bii ak période bii ku ne xam na ni si bawal bawal bawal ni mel ci cere loolu li ko daan cere tamxarit bi si la bokk wax ma moo ko daan mais li ko daan cere tam xarit bi ci la bokk. nañ ko cee liggéey wala. du liggéey Tapha daa bëgg cere. cere la topp ak doom. topp cere ji cere ci bisaab cere soow cere miskit ak cere laalaw luy cere da koy lekk cere daal la bëgg te Tapha day takk boolu cere piretu tam xarit bi yow bàyyi ngay dof. xam nga la bàyyi xel mais naan ngay joxe de. man waxaloog laa du ma lambalu de gisaloog laa. ak visologue wax nga dëgg cere dafa diis te tafa cere la avant la cere tafa dafa bëgg cere moom cere la dafa bëgg cere parce que cere tafa cere lay dundee ñoom Baye Ndiaye ba de tabax xarit bi une semaine ci des ñu tegal ko combat nga xam ne day dañuy tabax xarit rek mu bëre li ko daan cere cere ci la bokk lépp lay boro cere soo cere soo cere mbisi cere cere laalo cere lépp la koy boole li ko daan cere tabax xarit bi ci la bokk sa tawa ni bërëb ci ceegete kon entraînement yi baaxoon na mais dernier moment bi la cere xarit lañ ko booleel ñoom li ko def ci tam xarit lañ ko defal oh. li def cere ji ci tam xarit lañ ko def cere ji cere ji tabax cere ko daan de topp cere ji topp cere ji cere sa bool bi di lekk legetu cere boolu cere siwo cere dafa cere ko daan de billaahi cere ko daan mais tafa kon encadrement waroon nañu ji ma xool yooyu def ay kii ku am doole am fit bu la nee xëy nga koy cere lekk fu mu am ku nga koy cere lekk cere tabaat ne ko bu lekk cere nga ko demal xanaa bi mu koy ne ko bu lekk cere ji yow mais na ko daal koy lekk tabaat dama xam tabaat innocent dama comprendre dara tabaat li nga koy di ko dugal ci écran xam yàlla ba pare maa ngi déggwaat ay rumeur sànq dafa mel dañ ko sot tabaat dañ ko sot ko sot mais Pawlish naka laa mën a comprendre genre premier combat ñu ne dañ la sot liggéey la deuxième combat ñu bëgg indiwaat loolu noonu. est-ce que loolu mën na nekk Balla Gaye mbëru Dakar la Balla Gaye mbëru Sénégal la. Mhm. ñin Aziz du teg corona boobu nag bëgg Balla Gaye daal amul fenn amul fenn amul fenn. kon yow sa biir wax da nga jàpp ne Aziz da ci taqrib ci ci pour pour Balla Baye Ndiaye loolu ñoo ci taqrib ñoo ñoom ñoo ay accusation yu grave ñoom ñoo tëgg làmb ji naka lañ a farale Balla Gaye waaw waaw waaw bàyyi mu yow kan moo sotti galaaj kii ma am dama xool ak bay wax yow da koy kii xamante ma sotti galaaj ñoo ko desoon mais Aziz sotti wu ko Baye Ndiaye sotti wu ko koy sotti mais moom yàgg na ci ànd ak moom ma ñoom luñ bokk ñoom ñaar rek Baye kon su dee quoi ñoo yëpp ñoo ko xalil de xalil de laa fa gis muy sotti. mooy ñoo ko daan famille xalil ñoo ko daan. mais nag Pawlish il faut ñu waxtaan. yow li nga wax yow xam ne waa xaaral ma naa fekk bu dee xamoo ñu ko daan ki tëgg combat bi taxaw di ko wutal di ko wutal Balla Gaye une semaine mu am une semaine ne Balla Gaye incha allah day dem INSET xaw ma INSET xaw ma ki ko yóbbu INSET su léegi ba tëgg combat bi léegi kenn bëgg mu daan yow Pawlish dama dama bëgg ñu waxtaan ci xel Assisa Kodaan Baye Ndiaye Elimane Lam xam nga Elimane Lam Ndiak Diogu Mbaye ñoo sot Tapha Tine ah kon am di Moustapha wéetoon na wéet na ci làmb ji gisoo làmb ji danaa xul ji di xoole tax làmb ji da kaa xoole làmb yëpp Tapha Tine da mën a xoole yow nay bëree di xool ti mën a xoole ku yóbbu ma xool daloo yóbbu fit wi boo yóbbu ay féetu bëtam Tapha làmb ji day xafa fa bi rap rap rap rap ba ni fa da làmb ji Tapha da kaa xoole làmb Tapha di ba ci biir làmb ji di di di laaj maal fuloo laay xam dañ koy daal dama yóbbu fitam Tapha dem na may ne maa bëro fa la jaaree Maboro. sama kii xam nga ne waaw fa la ñu ne fii laaj am mu ne wutale ma. Kaba Dia pa pa pa Paalu yow dafa mel defet dafa la metti nag. ni ngay waxee ni metti sama àddina li ñu daan tabaate barke salaatu. yow yow xaaral bool bool la. du ma bool bool laa kay. bool bool man maa bëgg tafaati mu daan maa ko bëgg dama ko yéenoon mu daan tafaa dem ba ci biir lama ji di laaj camélia nga xam yóbbu nañ fi tam tafaa du tafaa kin daan tafaa parce que ñi il faut ngeen boo leen téye loxo yi téye nopp yi téye bët yi téye loos yi téye loos lamb laay wax est-ce que daan bi ngeen ma ngeen daan tafaati mais dama trop est-ce que doo bàyyi ñu waxtaan si lamb tuuti balla ngay ah, non Balla nag instant yi mooy empereur est-ce que duñ ko duñ xaar diggante Modou Lo ak Siteu ku daan ñu bëri ko ngeen bëgg Modou Lo daan Modou Lo daan Siteu ngeen ñëw bëriwaat pour jël ruuj pour jëwaat korong bi korong benn korong boobu ngeen yor. mais empereur bi d'accord ci. Ah, luy empereur yow. voilà li mu jël tey mooy empereur bi. li mu jël tey yélo créé rek te na ni moo ko jël. te empereur liñ te empereur liñ si moo gën moo gën a féete kaw roi kon yow d'accord ci revanche Balla Gaye ak ak ak Modou Lo. Apal ah, yow loola Balla def. Balla dama ko bëgg sama mbër la moom ma laa bëgg mais li ma daan tafaati neexuma. Balla sama xarit la ki muy àndal sama xarit la Cheikh bëgg Tapha Tine. mais man est ce que mun ngaa d'accord mbër ñu fay kii xaalis fay la xaalis ngay xool yow ba ñaan. ay nit dañ la liggéey Tapha Tine koy jàpp ci gàllaaj Tapha Tine du toog xamul ci keneen Tapha Tine koy jàpp ci gàllaaj ba ci biir laaj mi laaj may naan Mabro xam ne jàpp na ko ci gàllaaj Tapha Tine damay laaj tamit daa Mabro yàgg yooyu ak dënin nga xam si la. Eh, bi jàpp na ko de. koo jëm